président Bassirou Diomaye Faye fësal na bëgg ma récupérer téere yi nga xam ne ancien président bu Sénégal Léopold Sédar Senghor moom moo ko bindoon. bibliothèque poète président bi dañ ko fas yéene woon def vente aux enchères niki àllarba ji ci hôtel bu Caen foofe sa France gannaaw bu ñu yégee xibaar bi nag autorité yu Sénégal dañoo jox ndogal ambassadeur bu Sénégal ba nekk ci France ngir mu dakkal vente aux enchères bi gannaaw ba ñu amalee ay waxtaan yi yaatu ci la ñu dakkalee mbir mi. écrivain poète bi Amadou Lamine Sall moom nag alerté woon na ci mbir moomu bindoon na sax président de la république Bassirou Diomaye fay juróomi fan ci weeru avril ngir ñu delloo siwaat téere yooyu nga xam ne toll na ci ay téeméer fukk ak juróom benn universitaire bokk ci groupe de recherche international Léopold Sédar Senghor ñoom itam bindoon nañ benn texte ngir ñu sàmm boobule bibliothèque nga xam ni am na ay téere écrivain sénégalais waaye itam ay écrivain africain ku si mel ni Ousmane Sembène Ousmane Socé Diop ak Birago Diop waaye itam ay téere yoo xam ni xaritam bi René Maran moom moo ko bindoon gannaaw ñaxtu yooyu nag ci la président Bassirou Diomaye Faye fas yéene delloo si loolu nga xam ne patrimoine Léopold Sédar Senghor la waxtaan yi nag dinañ ko gën a yaatal ngir bibliothèque bi ñu delloosi ko ba mu mat sëkk.